amas bi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim barakat cheikh il xadim bokk jullit yi bokk taalibe yi nu delsiwaat ci fukkeelu waxtaan bi ak ñett jëme ko ci liggéeyu topp gi ñu leen di toppal jaar-jaar yi sëñ bi ci ay mayam ak ay jaar-jaaram ak liggéeyam bu barkeel bi nga xam ne def na ko ci géej gi ba ñëw te seen bokkum taalibe Moustapha Guèye taalibe sëñ Moustapha Massamba di leen ko defal soppeel sëriñ Mbàkke moom maam soxna loo Diop tey ànd ak sëñ Muntaxa ci liggéeyal sëñ Tuubaa te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér te ñaanal sëñ Moustapha mu yàgg fi te wér fas ci ànd ak yéen gannaaw bañ ko tàmbalee ci waxtaan wa jëkk indi ci lu bari ba jaar jaar-jaar yi nga xam ne dégg ngeen ko ñu nettali ko ak ni mu dellu si waate senegal ba ni mu demee gànnaar ba parte bu njëkk bi ñu jàllale ko ba nga xam ne dugg na gànnaar dem Sarsara ak dëkk ya ko waral jara jaraar ya ak fi nga xam ne mooy tintu muhsin ak fi nga xam ne moom la ñu xumaag muy saxwatul ma foofu fenn fu nekk sëñ bi def na fa jaloore te war na fa naar yi ay xéwal te la taxoon ñu yóbbu ko fa mooy naar yi buñ demee am na ñuy sëriñ te gëmuñu nit ku ñuul sëñ bi du amee taalibe taalibe yi ñu di leen dogale kenn du mën a jàll kenn du mën a dem loola nag moo doon xalaatu bi tubaab yi xalaatoon te loolu moo waral demuk saahir gi demuk batin bi nag mooy fay yàlla nar fay sëñ Tuubaa ci karaama yi nga xamante ne si ña nga xam ne ay naar lañu woon nekkoon ay shérif amoon woon nañ ko te génn àddina te ñi fi nekk mënuñu leen a wóotu ci loolu mu ne sëñ bi boo demee danaa la fa yóbbu teg lay natt bu ko natt yi jeexee nag te amoo ci benn bang bang ma jël ñooñu ñëpp seen euh, karaama yooyu jox la ko loolu mooy sababu baatin bi wirdu mahsul min allah bi wasiti rasulihi it foofa la ko joxee ki nga xam ne mooy Sëriñ Tuubaa ci guddik laylatul xadar gannaaw ba nga xamee ne woon na sëñ am satu jaxate wan ko mbind mi wala mu wax ko ne ko daa am lu ma bëgg kat bëgg ku ma ko ku ma ci ñaanal boo ma ci ñaanalee nag ba ma jot ci dana baax ci man ma ne ko ah ma yow lees la war a ñaanal ndax ma lees la ñaanal dara waaye mun na ko ñaanal ma rek mun na ko boo noo defalee nañ la ko mën a ñaanalee dañ la ko ñaanal mu defal ko ko guddi laylatul xadar googee fa la génn dem ca tund daje ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xarfan bi xarfin mu sàkko wérdu maaxuusun min allah bi wasiti rasulihi bi muy dem ci xayma gi nag bàyyi woon na fa benn naar bu ñu wax asan bi mu dikkee wan ko ne ko jógal gaaw jël bi wala daa nga bind ndax léegi laa gis ak sa maam ci tund ba mu sama wérdi bii kon nag yow sama xarit nga sama soppee nga kon yow laa koy jëkka wan daa di ñëw ci sañ am satu ne ko nag li ma la doon wan a ngi nii lii laa doon sàkk ci yonent bi yàlla dafa na am na ko muy wérdu murit muy werdu muridiya muy werdu maasun min bi wasati rasulihi la ko jiitu tamit foofu ci sarsaara xëy na benn bis ci fi nga xam ne fi lañ ko dalaloon tam daan ànd ak Cheikh Sidi am ñu mbaaraloon ko fi mel ni mbaar mbaar moom it biñ ko ko mbaaralee daa xëy wax sëñ am satu jaxate mu di fa toog di bind daa di wut ñaari mbàjj wut ay kilifa ba toll ci juróom benn jàpp juróom-ñaar jàpp fukk ne leen dem leen ca réew moom bu ngeen demee ca sa sama kër ga ca daru ma naan te soowub néeg ba muy xasab yooye mu defoon gan njëkk kër ga di lakk bu daru ma naan gi ngeen natt mi xasab gas ba jot sama liggéey ba ngeen génnee ko laxas ko ci mbàjj yi ngeen yanu ko bu ngeen ko yanoo yëpp bu mu laal suuf ba agsi bu ngeen doxee ba sonn ngeen lal menn mbàjj mi teg ko ci ub ko tëdd wër ko bu ngeen xëyee ngeen wat ko noona lañ demee yenn bagage si sëñ bi muy téere ya ba indi ko fi nga xam ne mooy Sarsara teggaal yi biñ ko tegee sëriñ bi bis bu yàlla sàkk day génne ab jukki sëq ci ab jukki sëq këyit gu weex go këyit goo xam ne si bindagun ci dara jël dàq li ma jox sëñ am sëtu sëq bi bu ko ko joxee sëñ am sëtu xëy di bind di bind di bind di bind bañ sëñ bi julli ji tisbaar ban julli ji ba ñëw mu fekkaat sañ am satu bind la sañ am satu jot a sotti loola lay jël sañ am satu nee na moo koy xoojal boppam ci ab kalamba muy ab këll jamb ko ba mu ba lépp yàbbi mu naanal ko boppam ba mu jeex takk nee na nag duma ci jox dara noonu la def gaalee ba gaalee jeex sañ am it nee na noonu la sottee gaalee ba gaalee jeex nee na kon gannaaw bi mu demee ci géej gi ba ñëw mbind mu ngeen fi gis defe na mbindum sëñ Tuubaa la mbindum am satu ngeen gis loola sañ am satu jaxate mii moo ko liggéey yàlla na ko yàlla fayal foofee nag ba mu fa nekkee nag ba ab diir xam nga Cheikh Sidi day faral di laxas te la koy tax di laxas mooy fu am ñax di am ak fu ñax di jeex te sëñ bi nag yooyu taxu koo jóg moom comme nag dañ koo tegoon ci loxol sëñ Sidi Cheikh Cheikh Sidi ya Cheikh Sidi yi donga yim àndaloon jàpp ne Serigne Touba ay donga la ci biir ci ci ci ci comme ñoom ci seex Sidi ya bi nga xamee ne yàlla dogal nag Cheikh Sidiya wax ko ne ko léegi kat fabal nu dem ndax jóge nañ fi nga xamante ne si mooy ya ba ñëw fi nga xam ne mooy sarsaara mu bëgg a laxasewaat sarsaara nag pour jàllaat sëñ bi xamal ko ne ko mënumaa dem mu ne ko may naa la ba ñetti fan ñetti fan yi jeex mu ñëwaat wax ko sa sëñ bi ne ko amaguma ndigal mu ne ko mayaat naa la ba ñetti fan muy juróom-benn fan ba juróom-benn fan yi matee mu ne ko amaguma mu ne ko mayaat naa la ba ñetti fan muy juróom-ñeenti fan ba juróom-ñeent fan ma ma tey mu ñu wax ko sëñ bi nag ne ko mënumaa dem jox jotu gu ma ndigal mu ne ko nag kon fii laa lay bàyyi na nga xam ne nag man la la tubaab yi tegoon te maa def garanti bi ba nga ñëw fii te fii ma la bàyyi moo la fa bàyyi fa leen tubaab yi fekk te du ma la mënal dara ba mu waxee loolu ba noppi nag daal di ànd ak mer naar yi nga xam ne ñoo àndoon ñooy doongay Cheikh Sidiya nag di yedd sëñ Touba naan ko yow ni nga tedde ak ni nga jàmbaare ni nga gëme yàlla ak ni ngay toppe yàlla nan la la sab sëriñ di ngay ngay ngay gàntal mu ne leen yéen de yéen am kumpa ci man waaye Cheikh Sidiye amul kumpa ci man ndax man day ba nga xamee ne nii ki may wër gisaguma ko day damaa meloon nu ko gumba moo tax may jël ay wér na ci ku ne demee nag ba gis ki nga xam ne mooy njiital diine ji nag moo ma xëccal boppam booba laa noppee am koy dox sama diggante ak moom moo tax mun a baanaali kulli man la fa ma xoolu ana wasilati wa rasul yéen a am kumpa ci man waaye Cheikh Sidiye amul ci man amul ci man kumpa Cheikh Sidi ya daal dem ànd ak ñooña mu dem yàlla natt ko fa mu jëm daje fa ki ceddo ñuy jàpp ci njabootam gi di dóor ak jël ci jur gi moom sonn dawaat ñëw ci sëñ bi bu ñëwee mucc bu dee la waatee nekk ci mujj mu daal di ñëw nag toog ci sëñ bi nangatu fee jóge ba noonu fi sëñ bi jóge nag dem fi nga xam ne mooy tintu moxsin yabal ñi nekkoon sarsaara ñu dem jiitu ko fa defaral ko fa kër bañ ko fa defalee kër nag fekk na am na ci benn naar boo xam ne yàlla daa dogal dafa am tubaab bu mu waxata waxata waxtaanoon ci saxwul ma muy xuma tubaab bi nangu ko fay xaalis ci ne ko boo ma rayalee sëñ tubaab boo dikkee dinaa la jox nangam ci xaalis te xaalis bi bari lool naar bi ñàkk ci am sagana tax mu daal di fay jógee ñëw fekk sëñ bi sarsaara bi mu dikkee wax ko ne ko dama damaa sopp sëñ bi te damaa bëgg a jébbalu ci moom sëñ bi daal di ko koy nangul nag ci sutura waaye xam na texe naar bi mu jël ay way jox ko ne ko dee ko wax waaye ma ci jublu ne ko man fu ma mën a nekk yàlla may aar lor du jóge fenn ñëwate ci man jeex na takk man fu ma mën a nekk damay bëgg rek waaye duutuma duutuma duutuma am lu mën a xari daa di koy joxaale suuratu yaasin ne ko nag dee ko jàng ndax li ngay waral mooy bu dëgëree ci lii nga xam ne nar na ko suuratu yaasin bi moo koy protège lii lépp naar bi gisu ci dara waaye mi ngi xool yan pexe lay mën a jaar ba man koo faagaagal te Serigne Touba lu dikkal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam koy dikkal ndax yonente bi am na ku ko dikkaloon koo xam ne dafa waaj ba jekk ne damay dem rey ki nga xamante ne si mu yonent bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallam bi ma koy bi ma koy bi ma bi mu waajee ba jekk nag mu daal di xalaat ne ah man de bu ma demee xëy jii ba nga xam ne yàlla dogal na li ma bëggoon amul sama njaboot gu sew gii de xuma naka lay def ak moom léegi am ko ko garanteel na ko demal boo demee su fekkante ne rey nga ko am victoire su fekkante ne rey rey na la tamit sa njaboot man maa ko garantil fii ba addunay tukki man maa leen di yor naar ba daal di jaayante dikk ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam nu yoog moom daal di koy wax mu ne ko luy sa tànk mu ko damaa bëgg a jébbulu mu ne ko déedéet jébbulu taxulaa jóg ba ngay départ di jóg di dem la nga doon waxanteeg kookee nga doon signeel la ngay signé moom mu daal di tiit xamal na ko doo nit keroog daal di jébbulu loola it kookee mooy naaj yi mii dikkal Serigne Touba bu ko Serigne Touba joxee bayit yooyu pour bëgg bu naree dëgër boppit mu mu bancee loru sëñ bi ne ko dee ko jàng guddeeg cëg bul tàggooteeg moom bu mukk mu koy jàng guddeek guddeeg bëccëg diirant liñ nekk Sarsara ba ni ni ñu tuxoo mu ànd ak Cheikh Sidé ñu ànd ñëw sañ ci sa kër bi nu ñëwee naar bi guddi gi njëkk fanaan ci la futtikoo ba def yaramu nen rocci jeesi ji romb Amar Fall nga tey mu daal di woo sëñ ma xam ne moo sosoon ci sëñ ne ko gaawal a gaaw naajee ngi ñëw te bu dikkee na fexeel sëñ bi bi mu fekk nañ ko mu rocc jeesi ji fekk sëñ bi tëdd mu xàcc bay bëgg a dóor waaye am lu ko lonk ci kaw xayma bi ñoom ñu ñëw song ko bi ñu ko songee nag daana ko suuf naar bi yooxu bi naar bi yuuxoo rek sëriñ bi daal di jóg dox seen diggante daal leen di dalal bañ dal fekk am na ñu gane si woon sëñ bi bay waaj a gont di dem sëñ bi ne leen fanaan leen ba suba ndekete lii la gisoon sëñ ba daal di yónnee ñoo ñu wóolu leen daal di ber ñii doon song naar bi bëggul ñu giseek ñii di wax ak ñoom ngir ñuy mën a xam li naar bi fexe woon mu ne leen kii ñii kat kii kat day sama xarit di sama soppee yëkkati lu ëpp la ko tubaab bi digoon yëkkati ay yére jox ne àndalee nag moom ngeen dimbale ko ci bagage yi dem ba fa poste fa tubaab yi nekk ca poste ba ca xumaag ngeen bàyyi ko fa ta dem ñu daal di jël naaji moomee daal di ànd ak moom yóbbu ko ba àgg foofa ñu bàyyi ko kon Serigne Touba moom lim na lil Moustapha nawaytumaa yi jaddidu sunnatuhul xarra wa inni amatu sëriñ bi mas naa ñëwaat gànnaar aw yoon gannaaw nag lii nga xamante ne si moom la taalibe yi bëggoon ci moom gannaaw li nga xam ne moom la taalibe yi euh, bëggoon maanaam keneen ku ñëwaat koo xam ne ab naar la ci ëllëg si bi mu dikkaatee nag ndaysaan xam naa kooku moom bokkut ak naar bi waaye tuba naar euh, taalibe yi seeni fit dem na ndax naar yi li ñuy dikkal suñ bi bari na ñu ngi tiit li newoon ci naaj ji ñëwaat ci keneen bi nga xamee ne nag kooku ñëwaat na ci sëñ bi weneen yoon lii ne kaw nag bi mu ñëwee nag taalibe yi bëgg ko sonal sëriñ bi yegg ko génn ko ndax daa ñëw wax ne daa bëgg gis sëñ bi ñu ne ko sëñ bi mënoo ko gis mu naan xanaa defe leen ne damaa koo bëgg a lor comme ni may ni ko ñeneen yi man ab taalibe laa comme yéen ñu ne ko mukk ba ñu demee ba xëccook moom nag am ko jóg poñe ko nag naar bi yuuxu bi naar bi yuuxoo nag sëriñ bi génn solul ay dàll dikk naan bàyyi leen ko bàyyi leen ko allah tuhibuna an yaxfirallahu bañ bàyyi ko mu am yum ko jox mu daal di delluwaat sëriñ bi am na foofa ñeenti at ci gànnaar bi tubaab yi gisee nit ñi nit ñi def foofu nag ak raj-raj ju bari ji tayit mu mel ne Cheikh Sidiye mi ñu ko boole loon daa xaw a mel lu dëppoog moom ci ay mbir mel na dañoo juboo lañ ko jëlee foofee nag ci atum 1325 ci gàddaay gi tolloog fukki fan ak ñaar ci gàmmu door koo nag indi fi nga xamante ne si mooy jolof sëriñ bi am na fa juróomi at moom it barab bu wéet la boo xam ne am ndox amu fa woon waaye téewul nag nit ñi di ko fa fekk bu baax nu raw nañ ko doon fekke ganar bi mu àggee nag la defar lu ñaari kër genn ga mu tuddee ko dëru Rahman gaja des nag mu tuddee ko dërul Xudoos waaye laata muy ñëw foofu nag danañ leen wax ay jaar-jaar yi nga xam ne ba tey continuer na nekk ko fa nga xamante ni si mooy gànnaar kon bi nga xamee ne yàlla dogal na mu des ca biir gànnaar bari na fay yeneen ay xew-xew yu fa xew yu sëñ bi siq ak naari gànnaar yi gannaaw bi mu ñëwee nag fi nga xam ne moom lañuy wax jaraar yi bi nga xam ne moom la wax alxalawiyun tudde ko biirul xayri sëriñ bi tëgg na fa ak xasida xasida gii xoola ko doon waxee xat jaa ani su'lu min rabbi bi takraari lasiyama hinda biir xayri jaraari hamdi wa shukli rabbi xaadali minan fil sirri wal jahri mahbuban bil abraari lii xaada yumna zihaabil Mustafa maliki wa kaana di laa yuri nii sarrafu jaari shukri li baaxin qadimin qad maha qibali an kulli shay'in bi faydi minhu li jaari lahu shukuri ladal xurrin xadin tasabu ila ali bila aadin wa xaraari zalla wa zallama baaxin laa sharika lahu xalal la si suqla aataani bi takraar yi alxalawiyun ñi nga xam ne ñoom lañ koy wax nee nañu xamuñu woon lana tax sëriñ bi tudde ko ko biir xëy na te kenn mësu ko ko tudde mësuñu ko dégg itam ci seeni baay boo xamante ne si mas na leen ko wax bañ suur fa nag ki nga xam ne moom lañu wax ahmadu ibnu buddin ñu door a xam nag mbóot moom tudde gi gi nga xam ne noonu la ko bi tudde ak xamit ni nga xamee ne noonu la ko ko tuddee muy xam-xam yu nëbb yi cheikh ahmadu buddin mii radiyallahu taala anhu sëriñ bi wax na ci moom ay mbir alxaaji muhammadu ibnu aba sëriñ ma Lamine Diom Dagana nee na ko baayam mas naa bind sëriñ bi walla mu wax ko nuyul ma yonent bi sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa barak ak Cheikh Ahmadou Tidiane radiallahu taala anhu te wax ma seenub delloo nuyoo nag sëriñ bi ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sahbihi wa barik delloo na la ab nuyoo ak Cheikh Ahmadou Tidiane radiallahu taala anhu moom it waxal na ko sëriñ ma Lamine Diom nee na moom it ba tey nettali na ko nee na ma baayam xaal daal di koy jàpp ci loolu yi sëñ bi tontu ci nuyu gi mu ko nuyuloo Cheikh Ahmad Tidiane ak yonent bi daal di yëngal boppam lu bari di wax ngir yéemu lool ci loolu yi nag not da loolu nag di not am xelam ba ni mu faatoo radiyallahu taala anhu boobu itam sore na nag fii ak fi sëriñ bi nekk bi mu faatoo nag sore na ak fi sëriñ bi nekk lool te xamuluñ ko kenn ci guddi gi ca suba nag la ndawi sëriñ bi dikkal sëriñ eh, ki nga xamante ne si mooy eh, jëmm jooju nga xam ne bàyyi moo moo génn àddina sëriñ bi digal leen yónni leen ngir ñu teewe ab dencam ak jaale ñooñam it nag bind ak xasida gooy xam le ne màggu sëriñ bi fa yónnent bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa salama wa barak ba mu teral ko ci téere téere bii nga xam ne moom la def da di bind haasa jasa u saydi ahmada ibnu buddin wa jasa u xalifatihi bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina wa lana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima nasala fi laylatil wafaati saydi ahmada ibnu buddin min asamaa'i ruuxil xuduusi alayhi salaam maa kasirin min almalaikati ikraman li saydi ahmada ibnu buddin lil xusni sannihi bi habdil xadimi kaana lahu bi karamihi l baaxil xadim walam yarjacu fi tilka allayla ila samaai ila bi ruuxihi altayiba allati rajahu biha wa hada huwa alwaxdu allati waxida lahu wa illa baxdi ma hunaaka azaara sayxu alxadimu bi qawlihi laqad jaa ruuxu alqudusu wa huwa mufarrihu bi jundi xasimi xiina ahmadu yaxruju li ahmada xind allahi ma kaana yartaji lahu baana xayra baana laysa yurtaji jasa allahu maa axta alxadimi la si lahu min allahi juudan xayrahu waxwa antaju minallahi rabbil hasi abti mawahiban li muhdi biha waxwa sahidu mutawajju madda sayidu sayidu saadati sayxan muxaddaman bi taxdimi bi sayxi wirdu dëhra man haju daat ci teg na loxo baana fi uxra kaw nii xadima man loxo sabtu wa taxdimu waxwa mutawajju ala sayidi saadaati ridwaanu seyxi wa ridwaanu xalqil xayril xalqi bi neex ma mu baxaw minallaahi abti lil xalifati ma nawaa bi jaahi la si anwaaruhu tan balaju alayhi salaama man hadaahu mufaddalan kama kaana fi asraai yaxlu wa yaxruju wasalaatu wasalaam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh est-ce que est-ce que loolu muy wax nag li muxdin biha daa li muxdin biha daa bëgg a wax ne maa ngi sàkkul ci yàlla tabaraka wa taala ay may yu jóge ci moom ki ma joxoon add yi ji di téere bi tudd bu almawaahibu Ladunil Xasalani sama mbokk sama xarit sama soppee sëriñ Amar mi ñu miin ci Ibrahima Joor radiyallahu taala anhu wax na sëñ Malamine Diop dagane na ko sëriñ Tuubaa xaadalaxo maxtaaralaxo mas na koo yónni mu jógee Sarsara wala tuntu Moxsin jëm Ndar di ko jëndali téere boobu nga xam ne moom la ñuy wax mawaahi bu allah duniyatu bu alxustalaani mu dem nag di wër téere ba ndax sëñ bi dana ko wëral ma ko ci gàddinaar yi foo ko fi gisul na la jaral dem ci réew ma wëri ko fa ba ba nga koy am wala nga ñàkk ko am mu wër wër wër mënu koo am mu daal di dëpp ànd ak jaaxle ba mu tolloog gàddoog ahmadu buddin mii nga xam ne moom lañ leen wax ne leen moo faatu te fekk mu xamanteeg moom mu jàdd ngir nuyu ko ak siyaare ko nee na ba mu yéeg yéegsee nag mu bég lool ci ñëwug Ibrahima Fall Diorga gi daat koy yaatal daat may dalal bëgg nee na nag ba ma ba nu toogee nag bay waxtaan mu may laaj yoon wi lan moo ko sabab ma ne ko sëriñ bi moo ma yónni woon ndara te am naa lu ma metti lool ci ñàkk am aajoy sëriñ boobu nee na moom Ahmadou Boudin mu daal di koy laaj ne ko lan mooy doon yitte ji mu wax ko ne ko téere boobu la ma doon wutloo ne ma wër ko ci gàddinaar yi soo ko gisul nga dem ca réew ma na mu daal di jóg duggal boppam ci biir di gëstu ci ay téeréem ba génnee ñaari xaj yépp ne ma boo demee ne ko maa ko ko jox addiya ngir jëm yàlla ji tabarak wa taala ma bëgg lool nag boo yeggee nga waxal ma ko lii ma lay wax nee na nag moom it ba ma jógee ma bëgg lool ba ma yekkee yeggee itam sëriñ bi gën maa bég ca téere bi ak ko ko jox su ko defee nag xasida gi gën naa dolli ak leer ki doon laaj ndax jibril dana ñëw gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam wa bokk na ci li mu bindoon mu jëm ci sëriñ bi sëriñ ahmadu buddin cheikhu muhammadul haafis mii bi mu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala julli ci yonente bi salallahu taala alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam wa barak daana cheikh ahmadou ibnu buddin mouhamadul haafis na xam ak képp kudul moom ci sërif yi askanoo ci sayiduna aliyu karamallahu wajhu te nekk góor wala jigéen ak kudul ñoom ci jullit yu góor yi ak yu jigéen yi ne yonente bi salallahu alayhi bi alihi wa sahbi wa sallam wa barak delloo na ko ab nuyoo cheikh ahmadou ak cheikh ahmadou tijani yonent bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama teral na ko teral ku yemoog mu képp ku moom teral na ko teral ku yemoog kamu teral mbokkam cheikh mouhamadul haafis yàlla na yàlla yàlla na la yàlla gërëm yàlla na nga am it ngërëmul yàlla tabaraka wa taala nekk ci gàdd ci gàdd gi te may la kóolute ci lépp lu ñu ragal lu ñuy ragal yàlla na ngërëm teewe ci sa kaw yàlla na teraanga mi ñëw ci sa kaw Cheikh Ahmadou Tidiane yéen yàlla na ko yàlla gërëm te dolli ko ak jéggal def na ko ne it doomam képp ku jël wirdu tijaan ci ñaari sëriñ yi tudd ahmadu yàlla na leen yàlla gërëm may leen kóolute yërëm leen mel na ne ku ko jël ci cheikh Mouhamadou Habis mii nag moom it radiyallahu taala xanu képp ku ko jël ci ñoom jaar jaar ca ba noppi jëmaat ci jëma jëma jëmaat feneen jëmaat ci beneen sëriñ maanaam jël virtu bi ci ñam ba pare jëmaat ci beneen sëriñ nee na kat fas na leen a bàyyi danañ perte àddina ak àllaaxira yàlla na nañ ci yàlla musal képp ku ko jël ci ñoom ñaar ñii nag jàpp ko ba faatu tanuwu na ci àddina ak àllaaxira képp ko xool lii nag na nga xam ne Cheikh Ahmadou Tidiane radiyallahu taala moo ko doon wax mu koy ma koy bind man mii doon bind maa def bayit wii moom Cheikh Ahmadou Bamba te mooy téere boobu nga xam ne mooy mawaahibu alladuni xosalaani boobu nga xam ne da koo soxla woon waroon ko ci biir téeram te gisatu ko mu yabal Ibrahima Fall joor na ko demal nga wutali ma ko ci gàddinaar yi soo ko ci gisul na la jaral dem ba senegal ca réew ma nga wuti ko fa soo ko gisul nga door a dellusi bi mu demee wër ko ci gàddinaar yi gisu ko nag dem ca réew ma wër ko ba gisu ko nag la jaar kër Mouhamadul Haafis mii kër doomi Ahmadou Boudin jii Ahmadou Boudin nii mu jaar ci këram bi mu fa jaaree nag de waxtaan ak moom mu wax ko lu waral yoon mu wax ko ne ko téere bii la ma sëñ bi doon wutloo te tiis na ma loolu ma dem te amuma ko nag la door a jël nag dugg ci biir jël ñaari xaajoo yi jox ko waaye ba mu ko ko joxee daa bindub leetar ne na ma nuyul Cheikh Ahmadou Tidiane ak yonent bi te bu mu wax ne nuyu nañ la rek am ci na ma jox ay firnde moom la sëñ bi doon wax firnde yi ci leetar bi nga xam ne ci lañ nekk bayit yii nag la sëñ bi dellu wax ne rëdduma salaami tay bi xat faaxa kulla salaamin yijlubul wi faaxa min habdi rabbihi alxadimi almustafa ila lasi xaasaxulaa xat tustafa yaa ayyuha cheikhu asimu saani uminat min darari kulli saani umintu min salabi xayri fika ilal jinaani ma muxtafika am nakal baaxee minal ashwa yi bu xurmatul muxtaari si liwaayi wajaa a cheikhu raddi tijaani man saara imadal xurri kal marjaani salaa wa sallama ala xeyril wara baaxin lahu xaadal xula wa shuwara ridwaanu baaxin yejlubul bi faaxa ala wali yi man xaafa faaxa subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon lii dafa bokk ci li nga xam ne mooy ba tey li nga xam ne amee na ko ca fa nga xam ne mooy foofu di gànnaar waaye ba tey des na kon dañuy ñëw ci fukkeel bi ak ñeent su ko defee continuer ci na nga xam ne na la waa awla daymaan waa bànnu daymaan àndi woon ak Cheikh Sidiya Baba ñëw xumaat fekk fa bi ngir aw maral maralu leen doon gaar xettali ga leen ci sëñ ba li yu baree bare géymaan ya yafa am danañ leen ko indil ci diiran bi nga xam ne mi fi la sëñ ba nekk kemtalaay kattan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.